ma laamu Faal Ibrahima Faal ëllëg la mbir yépp di leer ñu xam la waaju la gàntu xam ni yàlla buur la kañaan dafay lekk lu baax ni sawara di lekkee mat sopp naa Cheikh Ibra Faal yaa ko yow rek fi feeñal xar baax te xam nga neel yëpp tey sol la nuy daax bu Bamba doon rasulullaay sarmada ngay Babacar Sadikh rafiqu ahmada Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall lam Cheikh Ibrahima Fall lam Cheikh Ibrahima Fall lam Cheikh Ibrahima Fall lam ci kaw ci kaw du màggal Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall jóg leen taxaw ci kaw ñu màggal maam Cheikh Ibrahima Fall mës nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa ab murit di aw baraw pexe marit ba am ngërëm bëri murit te dooture di tex-tex mu daal di dem tey ba daqaar ngir dégg Bàmba di fa xaar seet na sëriñ tey ba Dakar faal ci njàng lay xamee pexe Cheikh Ibra Faal mu tëdd guddi li xaar bët sët mu xëy ba tisbaar sëriñ Maxtaar Touré fa jaar leeram nga won ko ay pexe Maxtaar Touré nga yori joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónni ko ca buur Cheikh Ibra topp cay fexe mu gis ko Cheikh Adama Guèye sànni mbiram daal ca ngoy mu won ko Bàmba mbër mu rëy sëriñ bi naa ko foo fexe moo ko tegtal ya fa moom sëriñ bi wax la fa moom mu xam ne gis na ko ko moom mu daldi fab mbiram joxe ma wax la bis ndax mu woor ñaar fukki fan ci weeru koor bisub di béer la mbir ma leer Cheikh Ibra Fall moo rëy pexe